saa su nekk mbégte la ñu am suñu war a jàkkaarloog yéen ci chaîne bu mag bi nga xam mooy Dakar People comme ni ñu koy defee spécial làmb tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy parcel c'est un grand champion koo xam ne da doon bëre mais léegi bëreetul bàyyi na mais ba tey mu ci biir làmb muy Balla Diouf borom Parcelles Assainies ndax boo xoolee bàyyi na làmb mais mburu parcelle bu ciy bëre da koy gis mu ñëw teewal la wax la lim la war a wax conseiller la waxtaan ak yow ba yàlla def tam wala moo xam ne yàlla def tey nag moom la sët fi nga xamante ne mooy parcelle dañu waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy écurie Fass ndax boo xoolee combat bi nga xamante Fils de Balla doon na ko bëri ak Lac Rose gisuñu ko boo ne Balla Diouf ne Fass loolu dinañ ci waxtaan ak moom sam laa ci àndal moo ne ci caméra bi waaye Aïssa nee naa la saa su nekk moom it da ciy jàpp ñu ngi koy bëggee baax di leen jaajëfa di kontaan ci ñëpp dama koy jox mu yoo Balla Diouf après ñu wéyal nga xamante ni mooy waxtaan bi ayca Balla Diouf nuyu naa waaw maa ngi lay fay di nuy waxee Sénégal ñëpp di nuyu mbokk internet yi. Mhm. di nuyu mbokku làmb. Mhm. Euh, di kontaan di félicité encore suñu lion yi. Mhm. di leen ñaanal yàlla aussi ci kan bi ñu nekk. Sénégal amaat ci ndam mu doon mbégte ci réew mi doon mbégte Sénégalais yëpp. ayca eh, Balla Diouf duñ la la duñ la laaj sax am kan mooy Balla Diouf ndax boo xoolee Balla Diouf nekkoon na fi un grand champion bàyyi làmb mais ba tey bàyyiwu làmb mi ngi des ci biir làmb mais Balla ñu gis mburu parcelle ku ci am combat da ngay ñëw teew sa diggante ak mburu parcelle waaw loolu dama ci kontaan parce que voilà mine de rien def na vingt ans de carrière mm-hmm. donc mun naa wax ni làmb jël na vingt ans ci sama ci sama vie mm-hmm. euh, boo xoolee plus ba ma bàyyi ak bëre léegi ba léegi làmb laay dund mooy suma passion leneen lu mu mënti def it ci làmb la ñuy dund. Mhm. Euh, expérience bu ndaw buñ ci am ñu ngi koy fexe partager le maximum at suñuy rakk. Mhm. ñi nga xam ne tey ñoo ko soxla si ñun. Mhm. Euh, ñu am yéene trop di leen ko partager. xëy na euh, ñoo leen jiitu ci làmb mais dàq ñu leen bëre dàq ñu leen xeex. mais tey xëy na expérience bi ñu am peut-être moom la ñuy soxla si ñun ñu koy partage at ñoom. voilà parcelle nag li ma booleek moom dafa yàgg parcelle maak moom histoire la. parce que parcelle sama carrière foofu la commencé. Euh, fubal naa fa nawetaan unité 19 fubal naa Santhiane. fubal fa nawetaan doon ànd ak Ousa. mu doon suma xarit moo ma jëlee Medina. indi ma parcelle ma dëkkoon seen kër. vraiment dëkk fa dë at ñoom dëkk bu rafet donc sama carrière foofu la tàmbalee. yàlla def. Euh, ñoom papa ñu ñoom ñii ñëpp màgg sama kanam. Mm-hmm. donc ma xam parcelle bu baax a baax a baax a baax a baax. donc sama carrière tàmbale fa sama defe naa premier combat ba. Mm-hmm. xaw ma ñaata combat falaa ko préparer avant may retourner Médina nag pour mm-hmm. sanc vraiment pour euh, ànd ak waa Médina pour def carrière. yàlla suturaal ñu aussi ba ñu delloo Médina aussi def nañ carrière. def carrière bu honorable yàlla def nag suñu passion teel a jeex si làmb. comme ni nga ko waxee suñu wërsëg teel a jeex ci làmb xëy na tey euh, yàlla suturaal nañu ci làmb ba am nañ ci vingt cinq combats dix huit victoires sept défaites donc teewul aussi donc cër bi ñu war a jox nit ñi jox nañ leen ko. cër bi ñu war a delloo tamit delloo nañ ñu ko. donc ba ma bàyyee bëre aussi euh, toog na nekk samay activité def sama reconversion nekk ci samay activité uh-huh. donc euh, jàmbaar aussi papa aussi. Uh-huh. ba mu amee jafe-jafe biir Fass donc woo ma ñu waxtaan donc mu wax ma euh, idée am at projet am ma encouragé ci donc ba mu demee ba projet bi taxaw aussi mu woo ma ma ñëw taxaw ci donc euh, li ma ci mën parce que loolu laa séq at waa parcelle parce que ba ma usa di jëlee Médina di ma indi parcelle donc boobu sama xam-xam ci bëre mhm. demeewul noonu mais parcelle laa mokkee ru mbax Mhm. parce que Espagne partenaires yi fi nekkoon ñoom ba Bakary Mbengue ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla xare àjjana ah, ñoom bii de ndeysaan ñoom Laye Dieng mhm. ah, ñoom euh, comment dire waay euh, mhm. Kunta ba Chérif bëri woon na ñu nekkoon groupe boo xam ne vraiment euh, ñoom papa ñoom Tafa ñi Mam Biram Ifra Pasman ñi ngi nekkoon xale ñoom si yàlla si Ifraat Passemal aussi ñu ngi leen ñaanal yàlla aussi yàlla xare leen àjjana donc sama carrière foofu la tàmbalee. ba sama carrière jeexee aussi ñu soxlawaat ma. donc dama bàyyi lépp lu ma jàpp dem. parce que papa dama ko considéré comme suma rak. donc te loolu la loolu moo am te loolu mooy am ba à donc ba ma soxlaa ma ñëw taxaw taxawu jàmbaar. ba jàmbaar taxaw donc samay activité nag ëpp ma doole mm-hmm. ba fan yi ma xaw fa gëj ndax samay activité ndax nit ki tamit doo teg dara bàyyi ko noonu après dem bàyyi ko ba muy nelaw da ñëw di ko di ko di ko sàmm mm-hmm. ci loolu laa nekk donc di leen ñaanal kontaan trop ci performance yi nga xam ne vraiment Modou def na ko mm-hmm, roi des arènes def na ko ñu gis vraiment parcelle ñëpp booloo jàpp parce que lii rek toujours day confirmer li ñëpp di wax naan li ñëw fait la force tey dañoo booloo moo tax force wuy si leen mhm. vraiment mu nekk booloo bu sincère mhm. booloo bu naturel mhm. booloo boo xam ne vraiment man mun naa ci wax dara amul vraiment loo xam ne am na voilà quoi ni ñu koy waxatee rek mhm. euh, mag jiitu rakk topp ci loolu rek la ñuy dundee vraiment mu nekk lu rafet lu lu Sénégal yëpp rafetlu mhm. séntu ko mhm. vraiment di ñaanal Modou aussi bu baax parce que moom tamit am na rôle bu bëri bu mu ci joué euh, ginnaaw bi mu nekkee roi des arènes wàccee boppam gën a suufe ñëpp vraiment yor pusoom di ñaw di def lu kenn yëgul vraiment mu nekk vraiment mu am mu dafa am valeur yoo xam ne vraiment en dehors de mbër en dehors de humainement vraiment c'est c'est nit la boo xam ne royuwaay la ñu koy ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam ñaan yàlla roi bi mu jël mu jik ko lool lool lool te mu yàgg ci moom ah, vraiment di ko ñaanal vraiment ak rakkam yi nekk ci ginnaaw yëpp ñoom Franc Gora Sock Dame Sène vraiment consort Jum de ñoom ñëpp daal vraiment booy ñoom ñëpp waaw booy ñoom ñëpp yàlla taxawu leen ba ñu def carrière bu honorable mmh. ay bi li tax nga bàyyi làmb doole ji moo fi nekkutoon wala boo ñu doon wax tey li tax nga bàyyi làmb lan nga nuyu. waaw loolu je pense que répété naa ko répété ko waxati ko waxati ko waxati ko waxati ko mhm. parce que làmb moo nekk loo xam ne mhm. euh, dafa laaj ay sacrifice mhm. nit nag pour nga def ay sacrifice foog mu ànd ak passion te loolu yëpp bu demee ba dee ci yow mënatoo def sacrifice ci ca waroon te ma samay supporters yëpp boo xam ne man déjà dama am dama nekk nit koo xam ne vraiment bugguma bugguma tricher bugguma tappale bugguma Oh, tu vois lu dul dëgg bëgguma injustice donc noonu la ma yàlla bindee donc ba ma demee ba xam ne man mii amatuma passion bi vraiment damay sonal ñi ma ñi ma nekkal rek parce que loo gis rek dafa am lu tax donc euh, mi ngi noonu ba ma demee ba amatuma passion wax dëgg yàlla boole kook am blessure boo xam ne euh, blessure genou double rupture ligamentaire donc ñu waroon ko opérer fii et tout ma bëgguma ko woon opérer parce que vraiment ça me disait plus rien que may opérer sama tànk après ñëwaat di def carrière boo xam ne déjà c'était compliqué c'était compliqué parce que defe naa ni Sénégal ñëpp xam nañ sama histoire fi ma sama fi ma jaar ak jafe-jafe yi ma am ba mu poussé ma ma bàyyi làmb donc loolu rek moo waral ma bàyyi làmb ba ma bàyyi làmb tamit donc nekkuma fi di triste ak yërëmtalu wala di tu vois di wut ku ma yërëm donc dem naa def sama reconversion def samay formation yor samay diplôme ubbi sama petite entreprise di ci di ci góorgóorlu donc ci loolu laa nekk depuis boobu ba léegi. donc sant yàlla. sant yàlla donc mi ngi noonu. loolu moo tax ma bàyyi bëri mais toujours sama passion moom toujours làmb la. te ku ma ci mën a dimbali ci làmb képp ku ma ci ah. soxla man. Ah. Euh, voilà parce que aw ma ci xaar ma yàlla at kenn mbër yëpp samay xarit lañ ñii mm-hmm. samay rakka lañ ñii mm-hmm. samay naataangoo lañ mm-hmm. ñii samay mag lañ ñii samay papa lañu xëy na nag man sama sama sama sama sama vision des choses moo xaw a différent at ñenn ñi parce que man sama dema di rek waaw man les faits je le dis comme ils sont donc xëy na loolu mooy xaw mooy xaw tax may déranger souvent lu bëri mais mm-hmm. noonu la ma yàlla bindee mm-hmm. euh, su ma gisee nen dama naan nen a ngi su ma ah. gisee leneen ne leneen a ngi donc noonu laay fonctionner mm-hmm. donc sant ci yàlla bu baax a baax waaw ànd am jàmm ak ñëpp daal <laughs> waaw yaa ma gën a xam ayca mu nekk lu am solo ayca Balla sànq maa ngi la koy wax ni la euh, da nga bàyyi laa mais ba tasi ba tey yaa ngi des ci biir laa nga nekk jàmbaar Wrestling Academy mais gis nañ tamit écrit parcelle euh, Rock Énergie ku ci am combat parcelle mbooloo parce que nga xamante ni moom la jos ne ku ci am combat rek da ngay ñëw teew gis nañ combat Modou Lo bi parce ñu gis la nga ñëw fekkee combat bi ñëw conseiller Modou Lo sa digganteeg roi des arènes ok yaa ngi koy wax ne ay waay ngeen. waaw Modou yàlla def. Euh, suñu carrière ñu dajee ñu bëree. parce que un moment donné dama nekkoon écurie Fass mooy ci sama carrière. yàlla def ma safoon lool ci làmb. Euh, def samay preuve. ba am fu ma toll ci làmb. yàlla di def euh, ba benn jour euh, association des lutteurs à l'époque boobu ñoom Moustapha Gueye père Mbaye Gueye ñoo ci nekkoon ñoom père Birahim Ndiaye Mor Fadam ak consort père Touba Dior. Mm-hmm. waxta woon benn rey réunion ci cëriñ at père Kat Amadou Kati Diop. bañ fa wootee donc période boobu maa ngi fréquenté at tafaaga yi lu bëri ñoo doon nekk pratiquement mm-hmm. euh, H24. Mm-hmm. pratiquement donc souvent euh, réunion boobu nag ma àndoon ak tafaaga yi dem ca moom mu àndoon ak xaarim Gadiaga ñëw ca. ci ñëw boobu nag ci la ñu gars xam nga ruubee ci lañ génn ci ñëw boobu ci ngoon gu ñu wooñu pour jox ñu avance donc boobu tamit moom macha allah def na ay preuve am donc génn na ci tournoi vraiment jël ko xam nga man tamit ma jóge woon ci tournoi donc ñun ñoo leen njëkk a bëri ci mini championnat après ñoom la donc ñun tamit ñu continuer suñu carrière dem nañ ba war a tourner tàll ko loxo donc boobu tamit moo du wax dëgg yàlla mbër mënatu ko bañ yàlla def ñu bëre vraiment combat bu neex te vraiment suñu combat yàlla dafa def mu marqué esprit yi ba léegi nii tey foo tourné combat Balla Diouf Modou Lo gars yi ba léegi dañ la koy wax parce que da romb sax ñun la sawaay li nga bëreeg Modou Lo ba léegi kenn mënul bëreeg Modou Lo li nga am ci Modou Lo kenn mënul am ci moom ci vois mu nekk euh, lu nice donc voilà yàlla def àdduna di dox àdduna di dox donc boo boole ñu donc ma jege ko ñu jegante vraiment mu nekk nit boo xam ne nit bu naturel la nit la boo xam ne vraiment Euh, nit bu entier la am respect ci nit vraiment yàlla daf ñu boole ci séance entraînement ak jàmbaar wax dëgg yàlla man dama ko naw dama ko respecté te dama ko nangul li ko yàlla defal dama ko nangul li ko yàlla defal nit la boo xam ne wax dëgg yàlla ku ko jegewul mënoo ko xam nit nit kase la quoi nitu kase la yëgul ni mooy roi des arènes yëgul ni mooy diw ñëpp la fonk ñëpp la respecté te li ma gën a neex ci moom mooy entraînement mhm. amul kii bëri woon nañu wala xoolew ma benn bët boo xam ne wala mooy naka sudul noonu toujours jox ma respect fu ma fekk galgal ñu bëre mhm. kafoore dóorante léeg-léeg ñu bëree entraînement ñëpp taxaw di seetaan ñu bëre bëre yu neex tu vois mhm. naturellement tu xam nga nit tamit xam nga ni nga ko gisee rek nga koy nga koy ëwalee vraiment man ni mu mel daf ma neex mhm. mu jox ma respect lool ma delloo ko ko trop sax mhm. ba pare naw li muy def mhm. respect bi mu jox entraînement euh, cër bi mu jox làmb vraiment cër bi mu jox képp kuy doomu aadama loolu neex ma ci moom ma jàppee ko noonu parce que Euh, am nay am nay temps beneen image laa amoon ci moom mais ba ma ko jegee laa xam kii ni nit ku positive la nit la boo xam ne wax dëgg yàlla li ko nit ñi di waxal yëpp nekk voilà nekkul ci yooyu yëpp vraiment nit la boo xam ne am na lu ko yàlla defal te nañ ko nangul mm-hmm. waaw noo gisee que ne ni euh, loolu day am xam nga euh, parfois man déjà njëkkeewuñu ko man def naa ko parcelle man dugg naa parcelle benn année ci benn at. Mhm. daan fa daan fa Dolf. daan fa Zos. Mhm. daan fa Moussa Dioum ci benn at dem si yàlla si yàlla na ko yàlla xare àjjana. du dëgg. Mhm. day am ci période yoo xam ne mbër am na fu muy tollu fu mu jublu rek. daf fay raxas ba mu set. parce que. Boy Niang def na ko géejawaay. tey Modou bu ko defee nekkul loo xam ne lu exception la mais dafa nekk loo xam ne. Mhm. vraiment dafa am ay jàngat yu bëri yu am ci ñaari combat mhm. ci espace su Modou ba mu fi jëlee roi des arènes. Mhm. at changement bi fi moodu am. at ni mu ñëwaatee ci làmb at beneen image bu mu indi beneen doxalin at beneen Modou bu ñu gis. tey Modou bu ñu doon gis at Modou bi bokkul tey jàngat. làmb ñaari làmb yi dafa am jàngat yu bari. ci côté mbër yi ci côté Sénégal ci côté nit ñi. wane ni yàlla rek moo fi nekk wan leen ni yàlla boo ko gëmee da nga koy wóolu mm-hmm. ba pare nit boo nekkee ci dara dañ nga ciy def fulla mm-hmm. fayda def ci jom mm-hmm. bu bu dee làmb dafa laaj entraînement nga entraîné bañ ne ngay dee bu dee làmb dafa laaj lëlu nga lëlu ba kenn du la gis bu dee làmb dafa laaj fit nga am ko ba mu doy sëkk bu dee làmb dafa laaj nga gëm sunu borom ba pare wóolu ko doyloo ko waakiru ci moom ñëw taxaw sa jub sa fol sa jum ak sa jom mm-hmm. wallaahi azim yàlla rek a fi nekk mm-hmm. dafa wan dafa jàngal ñu bari tey mbër yi ñi ngi perte xaalis bu bari ci àll bi mm-hmm. mbëri ngi bëri ba bàyyi bari du am dara tey jàngat yu baree baree bari da ci am ci àdduna que ni nit ñi jël sëriñ teg ko palaasu yàlla wala gëm sëriñ wala am fu ñu teg sëriñ si nii parfois di fàtte sax yàlla. war na leen yeewaat wala wan leen ni. yàlla mi ngi fii te yàlla rek a fi nekk te ku ko wóolu rek mu wan la boppam. parce que yàlla ci tàkkusaan lay wane boppam. te tàkkusaan yi ñëpp gis nañ ni yàlla taxaw na ko. parce que ku xool ni moodu entraîné na ful def na ful la def na jom yàlla taxawu na ko. kon ci li mu nekk. Mhm. neex na sunu borom bi kon ci lu mu nekk dëgg la. kon tamit yooyu tamit ay jàngat la yoo xam ne tey. képp kuy sénégalais wala képp kuy sportif war nga ko war nga ko mën war nga ko si mën a am jàngat. Euh, Balla comme mbër nga woon dañu gis combat bi côté Boy Niang numéro 2 mais mbër moo war a ñëw ci stade. toog ba 18 heures et demi nga doog a ñëw loolu mën ta yàq sa dara. waaw booy ñaa keroog bon dégg nañ ko moo expliqué mu ne vraiment embouteillage bee ko téye woon tamit te loolu tamit kenn gis nañ ñëpp. Mhm. Sénégal ñëpp xam nañ autorite bi nu mu mel. Mhm. ñëpp xam nañ ni mhm. dëkk bi yenn heure yi heure de pointe yi pour nga pour nga jàll problème la. tey bu fekkoon ne amoon na benn escorte mutaar wala benn policier bu ko jël mun ko wo xaajil yoon bi mu ñëw. donc voilà loolu yëpp tamit day day day day bokk ci préparation parce que tamit loolu yëpp day bokk ci mbër bu waree daanu. day day bëri yuy feeñ mhm. mbër bu war boo waree ñàkk mhm. ndaanaan mhm. dëgg bu waree ñàkk bés wala war a ñàkk tàkkusaan day bëri siñ siñ siñ si ñu koy ñàkkaloo day bëri ay retard ay ñëw doo nekk pression stress yàqamti yooyu yëpp day bokk ci signe signe de défaite. Boy Niang dafa waroon daanu donc yooyu noonu yëpp c'est c'est des aléas de voilà ni ñu koy waxatee du du jour du combat. Mm-hmm. donc voilà ñëw na joxe ne excuse nee na vraiment euh, embouteillage bee ko téye woon vraiment mënuma ci waxaat leneen. Mm-hmm. parce que vraiment man maa ngi doon xalaat ni ay tegtatu la tegtalu làmbalaak mm-hmm. tu vois lii tu vois yeneen détails yu bëri mais comme nee na embouteillage bee ko téye woon. wax dëgg yàlla beneen yoon da ciy bàyyi xel rek bu waree. préparer combat war a jóge fa sori mu teel a génn. Mm-hmm. wala mu teel a organiser ba nga xam ne bu jógee tamit dina mën a agsi à l'heure. Mm-hmm. ni mu bëree keroog boo ñu doon wax tey li ko gën a yàq ci làmbam ni mu bëree Modou li ko gën yàqal rek mooy dafa bàyyi xel Modou daf ko sóoraale. Mm-hmm. te pare psychologiquement nekkul woon à l'aise parce que boo ñëwee dix-huit heures. à de ton combat. li nga bëgg a def yëpp doo ko mën a def temps bi nga mën a am pour pour def say étirement temps bi nga mën a am pour sotteeku say gàllaaj temps bi nga am lépp ay gaaw lépp ay lépp dañ koy pressé te loolu du la permettre nga nekk dans la doo te mën a am teel am concentration pour mën a dugg ci combat bi boo gisee Modou teel na pare def na ay échauffement am def na léppam toog na déjà mi ngi sujet am xelam mi ngi ci combat bi déjà donc Boy Niang période boobu mi ngi ci ay jeexal bouteille conseil fii kii wax fii kii wax fee donc psychologiquement loolu yëpp donc munoo ko mënoo ko boole ci benn benn benn laps de temps. Mhm. boole ko entamer un combat. Mhm. entamer ko ci entamer yu ci gën. Mhm. <laughs> xeetu waaw xeetu jële bi déjà ci bëre la. Euh, dóorante nañu. sa échange échange nañ ku yu bëri dalantewul. benn ñaar moo ciy dal booy ñaa xaw a def kaaw dëbu song songu boo xam ne song aveugle la mhm. donc jël tànk bi ba muy jël tànk bi déjà boobu euh, équilibre mu nekkul woon vraiment mhm. euh, ci moment bi mu war a jëlee ba jëlee tànk bi jël na tànk bi Modou xaw ko xaw ko nooju mu mu rëpp mhm. bi mu rëppee Modou bloqué bloqué bopp bi jootu ye ngemb li bu mu yootoo ngemb bi rocc ci tànkam yootu beneen ngemb bi donc voilà naaj ko ci suuf ba booy ñaar réagir bi muy réagir ci la ko ci la ko delloo fi mu jógee mooy da ko puus donc voilà booy ñaar amul temps wu bëree amul temps wu xalaat mooy avant muy nekk ci combat bi daanu na en ay ci am na solo Sam kii mooy ki nga xamante ne mooy mooy mooy Balla ndax ku wax wax dëgg yaam làmb wax ko ndax boo xoolee nekkoon na champion macha allah dif bëri bu am solo comme ni ko ku bëreeg Modou Lo toog waxal ko li nga xam nga ne ko iñaan mënu ko ndax mënu woon a ñàkk ñu dugg ak moom foofu ndax analyse am dañ ko doon yàkkamte ñëpp dañu doon laaj Balla Diouf Balla Diouf tey mënuñoo toog ak moom ba dem te waxtaanu ci combat bi nga xam ne Modou Lo moom la jóge ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang ay ca Balla Diouf dañuy ñëw ci sa diggante ak waa Fass gis nañ combat fils de Balla bi passé ak Lac Rose gisuñu waa mais Fass yow wax nga ko sànq maa ngi jàmbaar. Mm-hmm. mooy nekkatuma Fass. Mm-hmm. donc Fass carrière laa fa def. Mm-hmm. comme ni bépp athlète wala bépp jour nekkee ci benn club. un jour mu dem nekkaat ci beneen club beneen jour mu nekkaat ci beneen club donc sport moo mel noonu. Fass nekkoon naa fa wax dëgg yàlla sama carrière peut-être fa lañ ma xàmmee fa lañ ma ràññee fa lañ fa la fa laa defee sama lu ëpp ci sama carrière. donc voilà yàlla def na nag ba àdduna dem ba nekkatuma fa. Mhm. mais ba léegi donc samay nit a ngi fa samay xarit a ngi fa samay rakk a ngi fa. Mhm. donc te Fass Sénégal ñoo mu liyaat moom donc fu ñu wax Balla Diouf wax Fass fu ñu wax mhm. Balla Diouf wax Fass yow déjà la preuve nee nga tey doo ñëw ba dem doo wax ak man waxu Fass Fass nag. <laughs> donc voilà mi ngi noonu sama kër la sama famille la ñu. Euh. donc voilà amoon na lu fi xewoon donc euh. je pense que soxlaatul. ñu ciy dellu si weesu na te mm-hmm. nekkatuñu si jamono jooju donc ñaanal leen jàmm rek ñi fa mm-hmm. nekk vraiment mm-hmm. samay grand ñoo fa nekk samay xarit samay rakk donc ñaanal leen jàmm gis nañ ni vraiment Lac Rose comme ni nga ko waxee génn na war def combat bu am jom def combat bu am ñam vraiment combat boo xam ne kenn xaaru ko woon ci moom parce tey ñëpp ne woon nañu fils de Balla du taxaw ak sax Lac de Guiers Lac day ñëw mm-hmm. vraiment jox ko favori bi sax jox ko ba ay quatre vingt pour cent mm-hmm. donc Lac ñëw woon ni ñëpp ni li ngeen xalaat du loolu mm-hmm. donc loolu performance la par rapport ak combat bi mu jógee moo Coins vraiment kon Lac ci diggante bi progressé na fi donc am na lu mu gëmaat ci làmb am na lu mu bëggaat ci làmb donc te xam na ne entraînement moo koy may mu dem entraîné ji même bien vrai que nekkul à cent pour cent mais bu amee soixante à soixante cinq pour cent bu continuer ci rythme bu mu nekk bu nekk à cent cent pour cent dinañ gisaat Lac Rose bi ñu gisoon Lac Rose bi naqaree bëreel mhm. Lac bi nga xam ne j'attaque je cogne et je gagne lay def bu ñëwees Mm-hmm. attaqué la dóor la gañ la donc voilà l'appétit vient en mangeant donc mm-hmm. ñu koy encouragé aussi mm-hmm. di ko félicité di félicité fils de Balla bëri na contre nature parce que yaakaaroon na ni adversaire bi mu am day ñëw rek saax-saaxa ko jaar jàlla ñëw ci biir combat bi mu jël coup boo xam ne xamul fu mu jógee kaawu debout donc combat bi réer ko donc sujet réer ko dem na ba ci biir combat bi nangootul jël benn responsabilité parce que bëggatul perte combat bi parce que yaakaaratu ko gagné ndax dute na fa lu mu fa yaakaarul woon. donc Lac Rose aussi jóge ci défaite. donc ñëw tamit combat bi demee noonu mu xam ne am na ci avantage. donc du bëgg a ñàkk loolu donc dute yooyu moo tax combat bi àgg noonu mais ñaari champion lañ yoo xam ne bëri nañu. wane jom wane fula wane xeex. mais dem nañ ba ba un ci combat bi nag calcul bi moo bëri. kii bañ na perte combat bi kii bañ perte combat bi kii mi ngi xalaat fi mu jóge kii di xalaat bu perte combat bi. donc ba combat bi te mi ngi noonu ñaari champion lañu nag. ñu ngi leen di encourager di leen féliciter. Lac Rose nag vraiment wane na ni donc ci làmb la bokk. donc voilà ci moom lay des mu continuer entraînement yi. Mm-hmm. ba nga xam ni tey euh, mën na dellu si fi mu ñëwoon parce que moom ba léegi xale la. comme ni ma koy wax ñoom la de ñoom Balla Gaye ñoom ba léegi xale lañ. Mm-hmm. làmb da lañ soxla donc mm-hmm. nañ nekk ci liggéey bi. vraiment euh, ñëw béggalaat seen supporter mais est-ce que est-ce que tardement ci làmb ndax boo xoolee ñu ne Lac Rose bi mu toll fi waroon na koo mais gis nañ keroog waa Fass la dañu ëmb Lac Rose beneen Fass lañ gis Lac tamit gis nañ ko keroog contre Quench ni mu bëree keroog mais ñu ci bëri nee nañ combat bi waru woon a jeexee noonu. parce que combat bu neex la boo xam ne amateur dañ ci doon xaar victoire. mais noonu rek la mënoon demee. ci ñaari mbër yi parce que ñaari mbër yi foog nga xam seen situation. actuellement fils de Balla ku xam géejawaay ak problème yi ñu nekkoon problème yi ñu nekk jubóo bi sax demeegul noonu kon bu fi ñàkkee combat ci diggante bi rek day gën a metti ci côté mhm. parce que ñu bëri dañ doon wax ni waaw waaw nii naa nii naa nii naa parce que Sénégal boo fi daanoo rek lu nekk loo lu la nëbbuloon dina feeñ donc voilà yooyu yëpp aussi ça joue mhm. Lac Rose gëj ci làmb ndax ay blessure ak cat comme ni nga ko waxee xaw a tardé ci làmb waaw xaw a cat topp ko am nga mhm. mu nekk mbër boo xam ne vraiment ba muy génn ñëpp xamoon nañ ni kii champion la dem ba ci biir ndog dal ko yàlla nag mooy def loolu ci carrière donc mi ngi noonu yàlla nag def na mu góor góorgóorlu euh, dund lu metti te kenn yëgu ko kenn mosu ko gis ci lu ñàkk fayre kenn mosu ko dégg dara mi ngi góor góor lu muñ nekk ci rukkam di liggéey ba yàlla indiwaat ko may ko combat yàlla xañ ko ci mu boole ko gëm yàlla at muñ demaat liggéeyi ñëw jël komba risque boo xam ne ñëpp ne woon nañ Lac warul jël komba bi ah. mu ñëw wane ci li mu ci wane mooy wane ni vraiment kii ku jara encouragé la ñu koy mm-hmm. encouragé mm-hmm. di ko ñaanal yàlla li des ci carrière am mm-hmm. mu doon ay ndam gis ni nag vraiment dafa am loo xam ne dafa bokk ci mbër keroog bu ñu gisee ni ko waa Fass ëmbee famille booy bokk. Mhm. ngay dem ci bës mhm. gis ñëpp. Mhm. dafa am beneen source de motivation bu muy def ci yow loolu phase dañ ko am phase benn gàllaaj la am ni ma koy waxee chaque jour heure bu ñu booloowee dañuy tëj ci làmb parce que dañu xam làmb tey keroog boo xoolee li wër Lac Rose yëpp Lac mënu woon ñàkk combat bi donc mi ngi noonu euh, ñu def ci communication bu am solo def ci bataay psychologique bu am solo ah Lac tamit ñëw wane ko ci terrain bi. Mhm. donc mooy wane ni Fass heure bu ñu boolewee rek. Mhm. donc mun nañu mun nañu sonal ñi ci làmb parce que mhm. euh, seen i mbëri ñor nañ ba pare. xëy na tey ay retardement at ay cat at ay blessure moo jàpp ñu bëri. mais tey bu ñu retrouver waatee ba nekkaat ci seen i tempo. tey mun nañu mun nañu téewaat làmb wala ñu yëngal làmb bu baax a baax a baax. Balla lay dañ koy gis kon li ñuy di wax ni Euh, léegi supporters yi yàqatuñu làmb ñi ànd ak mbëri ñooy yàq làmb ndax gis nañ keroog ki nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye ak euh, Fils de Balla jote nañ ci biir enceinte bi avant làmb ji di am te loolu est-ce que tamit ëllëg du yàq làmb mënut a waaw tey xam nga Serigne xam-xam ne champion la xale bu yaru la xëy na làmb mooy toll foo xam ne mhm. euh, neer yi day dem te nit mooy juum donc ñoom ñaar ñëpp ku leen xam ko xam Serigne Ndiaye de bokk mhm. man li ma xam ci Serigne Ndiaye kenn mhm. xameewu ko yu mel noonu. Serigne Ndiaye làmb bu nekk lay dem di bëre mbapat bu nekk lay dem di bëre. Mhm. mais xëy na tey fu làmb ji toll woon. Mhm. tey mënoon na ànd ak wax dëgg yàlla maîtrise am parce que sport foog avoir maîtrise de soi d'abord. Mhm. mais làmb moo mel loo xam ne jafe na mu toll foo xam ne nga téye sa bopp parce que lépp dafa gaaw. lu toll ni si tarafatal ay ñu sànni la dara wala ñu tuur la dara. te xam nga fu làmb fu muy toll ñu def la dara rek automatiquement da ngay réagir donc erreur la juum nañu. donc nañ xool CNG mi nga xam ne moom la fi làmb teg na xool ni nga xam ne moom moom yooyu problème yu mel noonu noonu la cas yu mel noonu nu mu koy réglé parce que yooyu tamit day du wane image bu rafet ci làmb mais voilà làmb la. am na ñaanuñu ko yàlla te souhaité ñu mu amaat. Mhm. mais yu mel noonu boo amatee mbër yi nekk ci géew bi di ànd ak mbër yi dañu ànd ak maîtrise ànd ak dal parce que mbër mi ngay àndal muy bëre ji. Mhm. yow boo amee boo boo dalee sa xel dal. Mhm. da nga koy dimbali ci lu bari. boo patinéwul rek doo ko patiné loo parce que boo patiné rek moom da nga koy excité. danga koy patiné ki mbër te bëriwul est que war nga dugg ci biir enceinte bi. waaw xam nga loolu yëpp CNG moo koy moo koy moo koy moo koy dogal mu dugg ci biir géew bi bu dugg ci biir am na tegtal yu mu doon def mais ki nga xam mooy ànd ak mbër bi te bëriwul mais est que kooku am na droit dugg ci biir enceinte bi. souvent CNG bu ñaari mbër yi waree bëree war a dugg ci géew bi hmm. ku nekk dañ lay may nga ànd ak kenn kenn ki ngay àndal mooy téye sa galaaj moo lay sécuriser en même temps. Mhm. Euh, ci làmb ji le temps que voilà ñu leen di bàyyi ngeen libre yéen ñaar mais ñooñu dafa war a nekk ay nit yoo xam ne c'est des gens vraiment. Mhm. Euh, avec un esprit vraiment largement. d'ouverture d'esprit mën a calmer le jeu mën a calmer mbër yi mën a booster seen mbër bu ñu wane jom pas wane loo xam ne avant combat bi vraiment kenn xaaru ko kenn soxlawu ko ci làmb erreur la nag l'erreur est humaine donc mhm. euh, ñoom Serigne Ndiaye xale lañu donc nañu baalu amateurs yi baalu sénégal yi et ñu jàll ci leneen non làmb moom naa la wax dara làmb li mënu ci indi en yu gën a garaaw yi am na fi mhm. ba ñu ngi fi mën nañ fi fàttaliku kaawu Cerno Cerno Cerno Cerno Gueye bu Faas du dëgg yooyu yëpp am na fi jàlla yeneen ak yeneen am na fi jàlla bii tamit day jàlla parce que làmb moo mel noonu parce que ñëw ñu nga gis noonu ñu du sauvage seen yaram a tàng rek ñu àgg ci comme ni nga ko gisee ci dëkk bi senegal ñëpp tey Sénégal boo xoolee kenn mayatul kenn dara yàqante bi bëri na xam nga faxansal noonu la demee nit nag mooy juum yaramam tàng na yaramu ñaari booy tàng nañ làmb ji moo toll foofu dem nañ ba nga xam ne moins de cinq minutes des ñaari mbër yi war a bëree xam nga lu ndaw rek mun na électrique mais heureusement que voilà y plus de peur et de que, de mal mais CNG moo ci war a jóg vraiment organiser parce que CNG moo war a organiser làmb ba nga xam ne d'une manière que vraiment ak beaucoup de sensibilisation beaucoup de communication. gën jege écurie yi jege mm-hmm. président mm-hmm. écurie yi jege amateurs yi jege mm-hmm. promoteurs yi ba pare di déglu ñëpp ba pare ñu fexe changer yenn règlement yi ci làmb ba pare fexe di jàngal écurie yi ñu fexe ba entraîneurs yi. maîtriser règlement yi di ko jàngalaale ci écurie yi parce que réglement yi fa foog ñu koy jàng ci écurie yi la gën a mën a jàng ba que ci écurie yi la ñuy tàggatee xale yi bu ñu leen tàggatee foofu tàggat leen ci ay règlement tàggat mm. leen ci ci ci ci ci ci nangu yoon nekk ci yoon mm. Mm. bu ñuy ñëw ci làmb beneen image ak beneen comportement la ñuy indi mais bu ñu bàyyee xale yi ba ñu ñëw ci làmb ñu bëgg a toog ci làmb ji ay règlement yoo xam ne kenn maîtriser kenn maîtriser wu ko chaque jour yu mel nii day am. Mhm. yu mel ni day am te dafa mel ni CNG day profité ci yu mel noonu. Mhm. ci naïveté mbër yi ci mhm. analphabètu mbër yi. ci ñàkk xamu mbër yi ak ñàkk mën liiru ménagères yi. comprends nga di bàyyi mbër yi ñuy def ay erreur ñu leen di sanctionné di leen dagg or que ñoom mun leen leen mun nañ leen mun nañ leen sensibiliser mm. mun nañu mun nañ leen di fekk seen écrit yi di waxtaan ak ñoom mm. di leen wax lan mooy réglement mm. lan mooy lii lan mooy sport jàngal leen ba mbëri ñeme leen bu leen mbëri ñemee xam ne ñii jàmm rek leen leen bëggal bu ko defee xoolaat règlement yi segg ko xool règlement yi tegaat ay règlement yoo xam ne du làmb ñëpp ci d'accord du yomb du yomb parce ni ñuy jiite yàlla dafa def bu ñu amoon yenn vision yi parce que vision mooy tax nga mën a am audace wu am ambition wu xam nga mën a fekk nit ñi. Mm-hmm. mën a waxtaan ak nit ñi partager les idées partager mm-hmm. partager collaborer mm-hmm. ak ñenn association yi wax ak ñenn ñi mooy tax idée bi taxaw te bu idée bi taxaw bu ko ñëpp ñëpp dans l'ensemble portendoo day possible. est possible. Donc rien rien n'est impossible dans cette vie. Mm. Il faut juste de l'engagement avec beaucoup de vision et beaucoup de voilà beaucoup de mm. abnégation parce que Sénégal toll na foo xam ne làmb toll foo xam ne. Mm. dafa war di làmb dañ ko war a internali interna interna internationaliser. parce que tey bu ñu demee ba ay ay. Jeux olympiques di am. mënuñu sax jaay suñu làmb. Mhm. mënuñu fexe ba làmb bokk ci parce que làmb créé ñu ay mécanismes yoo xam ne. Mhm. dinañ mën vraiment di importer di mhm. jaay suñu làmb. wala yenn événement yu mag yi ñu ciy mën di bokk. pour mën a jaay suñu làmb mais yooyu yëpp amul ay mécanisme amul idée amul ay xam-xam yu ci mm-hmm. amul ay financement amul benn état bu porter làmb pour làmb mën a suñu cosaan ñun ñu mën ko jaay ñu à travers làmb ñu jaarale ki suñu cosaan jaay ko ci àdduna bi mm-hmm. donc à travers des festivals des cultures de des semaines culturelles mm-hmm. des tu vois à mais yooyu yëpp amu ci malheureusement donc boo xoolee même ñi nga xam ne tey ñooy ut seen si déem ak seeni i Dakar nekk ay jeunes sénégalais nekk ci réew mi di uti seen i xaj dërëm di ko ñëw di ko dugal ci làmb ngir mbër yi mën a fonctionner tey ñooñu sax privé lañ leen tuddee tey promoteurs yi sax privé lañ leen tuddee pour te tey bu promoteur amul ci làmb kuy tëgg làmb mbër dina bëri CNG dina am lu mu dagg dina jaay licence donc pour te dire tey làmb li ñu war a waxtaane dafa bari mais du yomb parce que ñëpp bokkuñu même idée ñëpp bokkuñu gis-gis ñëpp bokkuñu intérêt am na ñoo xam ne boo waxee lii mën a nga seen intérêt am na ñoo xam ne boo waxee lee arrangé wu leen. Mm-hmm. du yomb mais làmb ñoo ko bokk nañ ko mm-hmm. waxtaanee. Mm-hmm. mais ni làmb di doxee en tant que koo xam da doon bëre bàyyi bëri du mën a bëri ba tey sax yaa ngi des ci bëri actuellement ni làmb di actuellement donc gis nañ ni làmb mi ngi dox dëkk bi jaxasoo na trop nit ñi sonn. dëkk bi metti làmb nag mi ngi dundal benn côté bi nga xam ni moo moo manqué ci sénégalais yi. muy loo xam ne tey xam nañ ko plaisir la muy làmb tey lu dëkk bi métti métti métti métti bu làmb amee sénégalais yi seen xol dina ci féex mi ngi wàññi pression bi ñu ñuy dund mi ngi wàññi coono bi mm-hmm. donc sant yàlla ba ñu tolloo fi moment bi mm-hmm. combat yu me neex yi di am mm-hmm. combat yu mel nii di am at lu ci mënti nit mën a wax at lu nit mën a wax am na lu muy apaiser quoi ci mhm. paix sociale dëkk bi mhm. donc ñu ngi koy rafetlu di ñaan yàlla mu gën a yokk mhm. ñaan yàlla làmb gën a dox xale yi gën ci gis seen bopp vraiment mu gën a yaatu daal parce que làmb naa la wax dara loo xam ne tey mën nga jóge fële doo dara ñëw dugg ci làmb doon dara muy journaliste bi muy mbër mi muy communicateur traditionnel bi muy tëggkat bi ah. muy wëykat bi mhm. ba ci amateur bi ñëw di seetaan làmb rek moo lay jëlee fa dara dul dara ñëw yóbbu la fa dara doon dara muy ñun ñii ñu Modou Lo Balla Gaye bëri na ay exemple mhm. bëri na ay exemple mhm. kon loolu dañ ko war a fonk luy luy luy defar nit luy defar gor dañ ko war di sëkk di ko sàmb di ko ñag parce que tey làmb defar na gor yu bari ci senegal am na produit yu bëri tey yu dox ci senegal ci làmb lañ jaar ba ñu xam leen. Mm-hmm. ba ñu am ora bi ñu am tey ci Sénégal. Mm-hmm. ñu bëri. Mm-hmm. produit yu bari ba ci ligne téléphonique yi duma ci tudd tur parce que damay bañ a publicité. ligne téléphonique yi ñu bëri ci làmb lañ jaar. produits yi nga gis ñuy jaay ci boutique yeeg ci marché yu bëri ci làmb lañ jaar ba ñu xam leen. am na kilifa yu bëri tey pour ñu falu ci làmb lañ jaar ba ñu xam leen ñu falu mhm. am na ñoo xam ne tey bu ñu faloo te safuñu xorom amuñu bayre mhm. ci làmb la ñuy ñëw ba saf xorom saf bayre mhm. am na ñoo xam ne bu ñu bëggee ñu xam leen ci làmb la ñuy ñëw kon loolu mi ngi defar ay gor mi ngi dundal ay milliers milliers milliers de sénégalais dañ ko war a sàmm dañ ci dañ ko war a jàpp fonk ko sàmm ko alma koko bi koko bi koko bi

ndaanaanu làmb la boo xam ne vraiment mhm. moom tamit mbër yëpp ko respecté ndax mhm. vraiment longévité am mhm. bu neex bu rafet bu mu def euh, vraiment at compétiteur bi mu doon Eumeu Sène bu amee combat nga xam ne mbër am na komba bu tuusee mu neex bu bàkkoo mu neex te ñëpp gis nañ carrière bu mu fi def mu jël Sa Thiès muy xale boo xam ne vraiment. jóge ci Reug Reug daan Reug Reug doon xale boo xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri. ñu ngi koy séentu fa ñu doon séentu magam muy Balla gay tey Eumeu Sène jël ko. di ndaanaan booy bi tamit nekk booy nekk xale nekk ndaanaan. kon combat bu neex lay doon parce que combat la boo xam ne. mun naa la wax mun naa am xeex bu gaaw mais bëre bee cay ëpp. waaw mun naa am xeex bu gaaw nag bu électrique. Mhm. mais bëre bee cay ëpp. ndax ñaari mbër yëpp. seen yaram dafa dafa màndi bëre te dafay soxla bëre te xam naa ni bëre bu neex dinañ ko ci gis mhm. xaw ma nag diggante grand at petit kan la mhm. mais combat la boo xam ne moom ku ci pronostiqué sax mun ngaa mën ngaa juum. grand waaw. <laughs> ngi yëngu. mi ngi yëngu grand yaa ngi contre grand contre petit yee ngi daw mais dafa mel ni temps yi grand yi ñoo mën petit yi de. temps yi moom grand ngi. yi moom grand yi ngi bëgg a xaw a yi nag non am na bëgg am na ay temps nga ne paa yi ñoo doon rey bëgg rey xale yi day grand yi ñooy bëgg rey xale yi kon xale yi ñoom leen dal la mooy seen problème xale yi yeewu leen. grand yi ngi leen di jeexal de. ah waaw. Ah, yàlla baax na en tout cas dal combat yu neex la vraiment Gris Bordeaux Ama Balde aussi combat bu neex la. ah mu nekk combat yoo xam ne wax dëgg yàlla comme ni nga ko dundee fan yi rek. Ah. ci combat Modou Lo ah. Eumeu Boy Niang combat Modou Lo Euh, vraiment Ama Baldé mu nekkoon ay journée yu neex ba journée yi sax di ñëw mi ngi neex. Balla waaw Balla waaw maa ngi koy dégg muy jël avance waaw waaw waaw waaw xam naa ne nag Balla moom dina contact lu bari ci combat bi ah. dina ci bari lu bari ndax Tapha Tine moom xam naa ne moom lu mu kor ah. te ñoom ñaar dañoo bëgg kor te xam naa ne kon Balla foog ah. loos yi loos bi wow kongo kon uh-huh. foog mu liggéey lu bari Balla moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal champion la aussi ñaanal ko yàlla aussi def na loo xam ne ci làmb wax dëgg yàlla kenn du ko gaaw a def yàlla def na nag mu ngi ci ay ndog-ndog mhm. dama koy conseillé rek mu nekkaat jëlaat liggéeyam entraîné waat wanta buy entraîné mhm. kenn du ko tiital benn mbër kon ñu ngi koy ñaanal mu ci mhm. reprendre entraînement yi dugg ci diini dugg ci saali yi di dóor saak di contact lu bari ah xam ni làmb ji sport individuel la ku ko mën a gunge ci géew ba lay des te moom dafa am jommu géew mhm. te bu duggee ci géew ba la war a ñëw yëpp ñëwul mhm. ah ndeysaan kenn yéenewu ko loolu may dañ koy conseil di ko ñax mhm. mu liggéey ndax champion la ndax làmb da ko soxla Sénégal da ko soxla supporter mi dañoo namm victoire ah, dañ ko namm kon nag waaw na rey boppam ci liggéey ñëwaat taxaw ndax ci ah, làmb la bokk non instant yi kañ moom fu mu ne nii bu jeexul sax jeex na. bu jeexul sax jeex na fu mu ne nii tàggoo bi sax mun na bañ a yàgg. gars waaw à vous de juger. Ah. waaw nice ba beneen yoon. <laughs> merci beaucoup. jaajëf. Aïcha merci beaucoup Balla Diouf ñu ngi koy béggee bu baax di ko jaajëfal di kontaan ci moom di ko béggee bu baax a baax a baax macha allah ndax nekk na nit koo xamante ni moom. Euh, day dundal làmb tey interview mi dañ koy yàkkamti wax dëgg yàlla ndax bu waxee di muy décortiquer ci làmb macha allah bu nekkoon ci làmb du mën a sax nekkatu ci làmb ba tey mi ngi ci biir làmb ah di ànd ak ñi nga xamante ne mooy waa parcelle mburu parcelle bu ci am combat dañ koy gis même mburu feneen sax bu ci am combat mu séqa moom jaam dañ koy gis kon nit la boo xamante ne wax dëgg yàlla mi ngi ci ba tey di ko jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci moom di wax fi nga sa tànk foofu la macha allah bég nañ ci yow yàlla yàlla wéral defal la jàmm may la gudd fan ba lépp loo yutu nga jot ko ci barki alxuraan yàlla mën na ko mën na lu ëpp loolu yàlla nag suñu borom bi defal macha allah kontaan naa ci yow bu baax a baax Papa Diouf Aïcha Sam moo nekkoon ci li nga xamante mooy caméra bi Aïcha moom tamit ci la bokkoon mais des fois day jékki ma ana ay saa day jékki-jékki réer <laughs> ñu ngi koy bégee baax di ko jaajëfal saa su nekk nee naa la ayaa mooy ne ci li nga xamante ne mooy micro bi jaajëfal kontaan nañ ci ñëpp di wax ba beneen yoon ci beneen émission spéciale làmb Sam jërë ngeen jëf